noo ngi sant yàlla yàlla bi nga xam ne dafa wéet ci ak nguuram wéet ci ak desam sell ci asaliitoom bët du tege ci moom yàlla moom nga xam ne moo dogal ci jaamam yi te lim dogal ci jaam yi amul kenn ku ci ban dara moo séddale wërsëg yi moo séddale digg yi mooy def kii mu gudd fan def kii mu gàtt fan moo def kii mu bari wërsëg def kii mu gàtt wërsëg moo def kii mu taxe def kii mu taxe bi noo koy sant ci li mu joxe di seede na amul benn buur buur moom amul ndend amul bokkaale di ñaan ci seede boobu ñu amee ci sunuy mébét di seede ne Seydina Muhammad mooy jaamam di ndawam te mooy sangu yorante yi yàlla na yàlla julli ci moom sëlmal ci moom ak ñam ak sahabaam julli ak sëlmal goo xam ne dañuy taqoo ba bis bi nga xam ne ci la yàlla di gaalal jaamam yi ci la ak jaamam yi ginnaaw lolu mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla ku ragal yàlla tari. nga te ragal yàlla mooy jëfee ndigal yi bàyyi tere yi maa ngi moytandikuloo sama bopp di leen moytandikuloo ma yàlla ku ma yàlla perte nga nañ taqoog topp yàlla ci topp yàlla dañu mën a amee suñu borom nañ moytandiku topp bànneex ku topp bànneexam réer nga nanu gaawee tuub lu njëkk dig ba di agsi nanu xam ne ku fàttaliku yàlla yàlla fàttaliku la te it nag lépp lu ngeen def muy ab dawal ci lu baax dangeen ko fakki seen borom nañ mooy ko sunu jamono jii jamono joj lu baaxam néew na ci ay nattoom bari kenn ku ne ci ñun mu ngi yittewoo àddinaam fàtte àllaaxira ñu bari fàtte dee diine tumuraanke ba mel neenam tàmbale woon mbokk yi nañ bàyyi xel bis bi nga xam ne pexe amu ca bis bi nga xam lépp lu waaye doon nëbb dana feeñ bis boobu nga xam ne suñuy cër dana seere te kay atte mooy yàlla mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee sallallahu alayhi wa sallam nee ngi nii ci taxeñ la bokk wow bët ak xol bu ak xër ak guddi mébét ñeent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak taxeñ la bokk waaye yonent bi sallallahu alayhi wa nee na su guddi jotee yàlla day tàllal loxoom ngir ki doon def lu ñaaw ci bëccëg gi tuub waaye su bëccëgee mu tàllal loxoom ngir ko doon def lu ñaaw ci guddi gi mën a tuub yàlla nii lay nekkeek jaam yi ba keroog ñu xëy jant bi di fenkee ca sow ba bu kerogee lañuy tëj buntu tuub mbokk yi lan moo waral sàggante gi ak fàtti fàttaliwu dee gi ñu ngi dégg xutba ay waaraati aju mu jot te taxul ñu waaro mbokk yi ñu ngi xëy di yóbbu nii ci barab yi waaye taxul ñu bàyyi sunu xel taxul ñu bàyyi dee sunu xel ndax dañoo njort ne dañuy sax wala dañoo yaakaar ne ñun bokk guñ ci ñu fiy jóge mbokk yi xanaa dañoo fàtt ne danañ faatu danañ dekki sunu borom danañu laaj ana anbiyaaw yi jiitu woon ana waliw ya ana xeet ya jiitu woon ana baay ya ana maam ya ñoom ñëpp ñu ngi ci biir suuf noonee la ñuy mujjee suñu borom nee na bakkan bu mos dund da mos dee suñu borom nee na naa leen nattoo ci aw ay waaye naa leen nattoo ci aw yiw mu nekk fitna ci yéen te ci man ngeen di dellu yonent bi sallallahu alayhi nee na dee leen bari lu ngeen di wax laa ilaha illallah lu njëkk ñuy dox seen digganteeg laa ilaha illallah ku ci am kuy wàccub liggéey toll ci sukuraat dee ko sabaat yooyu yonent bi sallallahu alayhi nee na ki gën ci yéen mooy ku fanam gudd jëfam rafet waaye ki yées ci yéen mooy ku fanam gudd te jëfam ñaaw mbokk yi imaamu saafi radiyallahu anhu nee na ñett yii ñoo gën a metti ci jëf yi néew doole néew wërsëg bu noppi topp lu metti la wéet bàyyi xel yàlla sàmm lu jafe la waaye nag la gën a jafe mooy baatub dëgg ci kanamu koo yaakaar ci moom njariñ wala nga ragal ci moom lor mbokk yi Cheikh Abdou mu mi doon fàttaliku démb dafa nekkoon xakiim yàlla mayoon ko muy wax wax yu gàtt te am njariñ te ñépp mën cee jariñu daana wax ne tànk lu mu gaawee na ko tege ci aw yoon daana wax ne fu sa tànk di tege na fa sa bët jiitu daana wax ne ku ne ku dem ma dem ku demul ma dem boo gëstoo gis mbooloo ci sa ginnaaw daana wax ne juróom-ñeenti yëf yii bu ci nit ñi jugoon sunu borom sotti xéwal ba mu daj àddina ba ci njëkk mooy xam yàlla te toppaloo ko ñaareel ba di jàng alxuraan te doo jëfee li mu digle ñetteel ba di woote woon bëgg naa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te doo jëfee sunnaam ñeenteel ba di lekk xéewali suñu borom yi te doo ko sant juróomeel ba foo toll nekk ci sa sikk moroom bàyyi sa sikk juróom benneel ba ragal sa wara te doo def lu la ca musal juróom ñetteel ba juróom ñaareel ba bëgg ajana te doo jaamu lu la ci yóbbu juróom-ñetteel ba di muslu ci saytaane ci kaw te ànd ak moom ci biir juróom-ñeenteel ba nag mooy foo toll di suul ko faatu te doo waaru mbokk yi Cheikh Abdoul Ahad nee woon na lépp lu waay jëf ngir àddina kese kese yàlla da koy yëkkati ba ñëpp gis ko mu doon pënn lépp loo jëf ngir nit ñi dégg ko suñ borom dana ko dégtal nit ñi ba ñu ba nit ñi dégg ko waaye foofu lay yem ak yow daana wax ne lépp looy jëf ngir yàlla kepp rekk dong bul ci sedd xel nit ñi bul ci sóoraale nit ñi waaye lépp looy jëf ngir nit ñi bàyyi ci xel nit ñi wax ne lépp lu nit wut te wutee ko ay teggin mën na ko am waaye lépp la wut wutee ko tegeen boo ko amee ba noppi téye ko ab yar mën naa yàgg ci say loxo doo ko ñàkk daana wax ne koo xam ne boo juddoo ñëpp yëg ko boo faatoo ñëpp yëg ko diggante bi lum fi def ñëpp yëg nañ ko daana wax ne ay nit bu ñu àndee bu ñu àndee ci lu ñu mënta séddoo nañu rafetal àndin wa daana wax ne nañ góorgóorlu ci ak jub mooy sunu ndimbal nañu góorgóorlu ci lu wér mooy sunu sàkk mbokk yi xikam yii dañ koy bàyyi xel te di ko fàttaliku ci sunu dund ci sunu jëflante yàlla nañu yàlla jéggal sunu bàkkaar yi njëkk ak yi mujj yi ñu xam ak yi ñu xamoon yi ñu tay ak yi ñu tayul yi ñu yëg ak yi ñu yëgul bu nu jéggale ba noppi مصبر نيوكو جيف جو باخ ني بوكو سي فاولائك يبدل له سيئات حسنات سونو دافي لول بو نوبي نك مو ار ني بقال ني توبي يالنا يالا ديفال ني توفيق ديفال اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يحيثكم لعلكم تذكرون